waaw connexion laa doon jënd xam nga doon jënd connexion 4900. ah da nga doon jënd connexion waaw. connexion waaw par web laa doon jënd léegi nag bi may jënd connexion bi xam nga suñu numéro yi dañoo niroo. waaw. waaw léegi nag dama juum envoyé message connexion bi mi doon jënd laa juum envoyé ko sa numéro. parce que suñu numéro ah, da ngaa juum ko man sama numéro. waaw kay damaa juum dugal ko sa numéro damaa juum dugal ko sa numéro. wax nga dëgg. voilà xam nga si numéro yi man léegi nag ma juum nag def séeréer si 63 message bi ma waroon xam ne moom laa waroon moom laa jotul moo ñëw sa numéro. wax nga dëgg waaw waaw waaw. voilà moo tax ma xaaral ma wala quoi laaj la bu nekkee message bi ak na ko bu ko defee nga mën di ko. waaw man kay dafa mel ni seen naa benn message kay. waaw jot nga benn message voilà moom la ko. waaw waaw. waaw léegi nag xam nga message bi xam nga soo dugalee montant bi ngay jënd dafa la message bi ñëwaat. waaw dafa la war a jox benn code pour nga lancer ko mu jàll. waaw. waaw code boobu nag day ñëw si message bi léegi code boobu nga may jox rek su ko defee mu yóbbu ko agence bi mu annulé ko quoi yónneewaat ma ko waaw waaw bu ko defee moom dana ko mën a annulé sa numéro yónnee waat ko sama numéro bi ku baax waaw yow de wax dëgg yàlla waroo tudd alaaji Fallu dëkk Touba ba pare di di dund lii ngay dund loolu dafa ñaaw ah ma ne waaw yow li nga tudd rek moo ci gën a rëy te xam naa ne am nga ci bu la yow ak sëñ Touba ne alaaji Fallu Touba Daaru Marnaan ba pare di tirandi nit loolu ku jub du ko def xoolaatal sa bopp te nga xalaataat bàmmeel ma ne nga xam ne kulu kulu nafsin saa yaxatin mawti bakkan bu mos dundi nga mos dee damaa bëgg nga Koubax yaa may dégg. waaw. waaw lii nag na ci ñëpp bàyyi xel képp koo xam ne yaa ngi yor compte Wave gars yi fi ñu ne dañoo jëkk pour triant te nu mel ni la ñuy sa genre gi waaw. li ma la wax kay dégg ko dama ne la li ngay def xam nga yëfu triant la waaw xamoo lan mooy triant demal nga liggéey doomu aadama nga te macha góor nga demal nga daani doole moo gën triant bi. li ngay def amul benn solo amul benn sens dama ne képp ko yor compte Wave nañ ci bàyyi xel gars yi leen di woon naan leen da ngeen di damaa jum envoyé la connexion ku ci transféré connexion yàqu nga ku ci joxe code waaye du loo nan la lu nekk sa compte nañ ko récupéré dégg nga. <laughs> coupé na lu ma leen wax coupé na na ngeen ci baxeel bu baax nag man la Malick Baye Fall gars yi nii la def di rey nit ñi.